ay waay jug leen màggal soxna jaara jug leen màggal soxna jaara ay woo leen jug leen màggal soxna jaara jug leen màggal soxna jaara ay waay jug leen màggal soxna jaara jug leen magal soxna jaaraay te jug leen magal soxna jaaraay ànd ak say morom di jëri bay ànd ak di jëri bay dangay jëri bay soo ne mali maa bu soo baale bu soo baali maam jaaraay sobaali poroxaan roy waay ngaaye u sobaale waaw leen magal soxna jaaray ku ma sabal soxna jaara bu so defal lii sa loxo ku ma sabal soxna jaara defal lii a jug leen magal soxna jaaray ànd ak say morom di jëri soo goree dangay jari bay soo gorewul ne mani bay ah, ah, ah. mu soo baale xarnu bi amoo fi maase seex ma seex ma samba xarnu ba nu jëm amoo fa maas lasan ba xarnu bi xarnu banu jama moo fa maas Seex Masamba ya waa lasan ba xarnu bi yaa moo fi maase Masamba waaw xarnu banu jama moo fa maas Seex Masamba ya waa Seex Masamba xarnu bi xarnu bi amoo fi maase samba ya wa xarnu eh, ba nu jëm amoo fa maase ma samba ya wa la san ba sant nanu laay gërëm nanu laay ma samba ya wa ge ah, ba janaay ma samba sabu Serigne Saliou sant nanu laay laay sama samba ya waaw di la bëgge ba janaay sama samba soppay Serigne Saliou sant nanu laay gërëm nanu laay sama samba ya waaw di la bëgge ba janaay sama samba ya waaw sant nanu laay gërëm nanu laay waaw di la bëggee ba aljanna sama samba sant naanu lay gërëm naanu lay waaw di la bëggee ba aljanna la daan ba sant naanu lay gërëm naanu lay waaw di la bëggee aljanaay amba waaw maam dama fekk ñu war a àggaat fee sa daayira bële moo waral